أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد خلقه وزينة عرشه ورداء نفسه ومداد كلماته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد عباد الله قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن للعيد الأضحى معاني عالية وتآلم نافعة لو فقهناها معانيها وعملنا بها لارتقينا أعلى الدرجات ولأصلحنا حياتنا بالطاعات فمن معاني العيد العظيمة تحقيق العبودية لله تعالى التي لا فلاح ولا سعادة للإنسان إلا بأن يكون عبدا خالصا لرب العالمين يعبده لا يشرك به شيئا كما دل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يتوف بهما وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبهذه المواقف يصدر إبراهيم وزوجه وابنه درسا للأجيال خالدا تتألم فيه كيف يكون استسلام لله والطاعة والخضوع قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk jullit yi ñu ngi màggal sunu boroom màggal goo xam ne nii amul fu mu yem ñu ngi koy màggal màggal gu toll ne la nga xam ne loolu la bind di ko màggal màggal gu toll ne daajay bind ay waxam di ko màggal màggal goo xam ne nii toll na la nga xam ne moo koy gërëmloo di ko màggal màggal gu toll ne diisaayu arasham ba waaye ñu ngi koy santit sant yu bari lool sant yu tey lool sant yu barkeel lool di seede ne moom dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu te itamit muhammad ndawam la woon bu mu yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy nangoo roy ba baa bis penc di taxaw gannaaw loolu maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla na ngeen sax ci loolu ba baa dee fekk leen ci képp ku ragal yàlla xat-xat ya koy dab ci àdduna yàlla dana ko ci may ay génnuwaay ci wërsëgal ko fu mu ko foogewul woon bu loolu wéyee sunu borom nee na xeet boo gis day am na genn feet goo xam ne ñoo ko yeyoo amma muy bu yàlla gërëm wala mooy boo xam ne seeni bànneexu bakkan la ala kulli xaal sunu borom subhanahu wa taala nee na amul benn xeet ci ñëma masa yu ni ci yeneen lu dul tëralal naa leen loo xam ne daan mën a tudd turu yàlla yi ci lim leen wërsëgal ci bàyyuma yi xam leen ne seen borom benn borom la bégalal ma ñi nga xam ne dañuy toroxlul ñeel yàlla suñu tuddee yàlla seen xol ya tiit waaye di wërs la ma leen wërsëgal ñu cay dépensé waaye di muñ natt yi nga xam ne ñi ngi koy yàllaa ngi leen koy nattoo ay yéen mbokk julit lii nga xam ne mooy feetu tabaski bii ñu nekk xam leen ne am na ci ay maana yu rëy ay jàngale yu am njëriñ lool su doonte ne julit ñi ni ñu ànde di feetu tabaski noonu lañu ànde woon comprendre ko xam ko ñu wëlbati ko jëfe ko kon fekk na yeggoon nañ ci ay daraja yu kawe fekkoon na yéwénal nañ sunu dund àdduna ak sunu dund alaxira bokk na ci loolu nga xam ne fekk tabaski gi danañu ko jàngal mbokk moom mooy dëggal sunu jaamu ci yàlla subhanahu wa taala ay yow mbokk julit yàlla moo la bind indi la ci kaw suuf pas pour nga nekk benn maçon wala menuisier wala togukat yàlla dalaa bind pour nga jaamu ko jaamu googu nga xam ne ak texe mënul am ci nit jaamu googu nga xam ne mucc mënul am ci doomu aadama lu dul da koo jagleel yàlla subhanahu wa taala mi borom mbindaafan yi bañ ko cee bokkaaleeg dara loolu lañu sunu borom farataal ñu koy fàttali ko fukki yoon ak juróom-ñaar ci bis bu nekk naan ko yàlla yow dong la ñuy jaamu yàlla ci yow dong la ñuy sukkandikoo loolu mooy iyaaka na abudu wa iyaaka nastain borom bi it wax loo na yonent bi ca mooy jullit ñëpp roy ko ci loolu man de yàlla jubal na ma ci yoon woo xam ne yoon wu jub la di diina joo xam ne nii ju taxaw la ci yoonu njub ca mooy ah yoon ba nga xam ne nii moom la ibrahima alayhi salaam jaaroon man de sama julli yëpp sama rendi yëpp sama dund gépp sama dee gépp kenn rek laa ko jagleel muy yàlla mi nga xam ne mooy biraam borom bindaa fan yi lii rek lañ ma digal te nekk naa njëlbeenu ko jébbalul yàlla mbokk ibrahima ngi noonu sunu borom yàlla def ko ci ñun royukaay xoolal ibrahima mooy kan mooy ka dëdd woon baayam ibrahima moom mooy kan mooy ki dëdd woon xeetam ci yàlla tax ibrahima mooy kan ki nangu woon a joxe boppam ci yàlla tax ñu sànni ko ci sawara ibrahima moom mooy kan mooy ki nga xamee ni nii yàlla natt na ko mu mege lool amul doom ba mu demee ba am doom doom bi nga xam ne mat na ko sët sëtaat mu bëgg ko lool sunu borom ne ko jël ko yóbbu ko ci àll ba gën a sori àll boo xam ne amul mbay àll boo xam ne ay montagne kese la àll boo xam ne nii dëkkandoo nekku fa àll boo xam ne xattaa ndox mu ñu naan sax nekku fa ibrahima ngir déggal yàlla subhanahu wa taala mu daal di jël doomam jooju ak soxnaam sa daal di koy yóbbu ca àll boobu bàyyi ko fa loolee mbokk ak jébbalu la goo xam ne yàlla ngi jàngal ñi nga xam ne ñooy bàyyi ca mooy dine ne gannaaw ba ngeen jébbaloo ñeel yàlla da ngeen war a jébbal seen njaboot yàlla subhanahu wa taala dégg naa gaa yi di way naan jébbalu moo wóor waaye di wax naan bala ngaa nekk taalibe da ngay jébbalu jébbal sa njaboot jébbal sa alal wallahi waxi dëgg la question bi kay mooy ci kan la ñuy jébbalu question bi mooy ci kan la ñuy jébbal sunu njaboot question bi mooy kan la ñuy jébbal sunu alal mbokk kenn kokk kenn dong la muy sunu borom jàll wa ala mi nga xam ne nee na inna allaha ashtara min almuminina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna yàlla mu ne jënd naa ci mboole mi julit seeni bakkan ak seen alal ndax dama leen nar a fay ajjana ci borom ajjana dong la ñu war a jébbalu moom la ibrahima jébbaloon njabootam ca biir montagne arabie saoudite ya ca biir àll bu xonq ba waaye soxnaam su baax sa di haajara soxnaam soosu ba nga fa ibrahima bàyyee mu ne ko waa ibrahima fii nga may bàyyi ibrahima continué dem mu ne ko ibrahima ndax lii nga def yàlla la ko sant mu ne ko waaw yàlla ma ko sant mu ne ko kon demal yàlla duñu seetaan abadan mbokk loolu yéen jigéen ñi benn leçon bu rëy mi ngi noonu yàlla jagleel leen ko te mooy ngeen war a topp seen jëkkër ci lépp loo xam ne yàlla araamalu ko lépp loo xam ne nii jëkkër digal na ko soxnaam te nekkul lu yàlla xaraamal loolee da nga ko war a def lu mu metti metti xamal ne mujj gu rafet dong moo cay am looloo tax Haajara def loolu waaye ndax bind ba laa yem ci jigéen ñi rek laa mbokk loolu mooy jébbalu mooy nekk ci àll ndox amu fa dëkkandoo amu fa lekk amu fa nga jébbalu ci yàlla daa di ne duñu seetaan loolu yow góor yow jigéen loolu benn mbir la boo war a bàyyi xel waaye mbokk jébbalu ci yàlla it dàqontewul ak sabablu moo tax sunu maam Haajara daw na dem ca Safa ngir xool ndax dana gis ay jëgg jum ñaan ndox daw dem Marwa diggante bi di presque quatre cent mètres mu def ko lu jege juróom-ñaari yoon di presque trois kilomètres yoo xam ne mi ngi koy daw ndax booba ndox mi mi roon jeex na Ismaïla ngi wéqu ci kanamam di jooy loolee yàlla di ko seetaan ba mu def ko juróom-ñaari yoon yàlla daf ñuy jàngal ci ne yow jurit da ngaa war a sabablu waaye it booy sabablu bul jël sa xol wékku ko ci li ngay sabablu jëlal sa xol wékku ko ci yàlla masalan yow commerçant bi bul jàpp ne commerce moo lay may de ak a bëri ñu amoon ay millions dugg ci commerce daanu yow mi tukki bul jàpp tukkee lay may ak a bëri ñu tukki fanweeri at amuñu dara kan mooy maye mooy yàlla moo tax sunu borom ba muy xettili haajara xettili woo ko ca lam yaakaaroon daa yónni malaaka jibril mu ñëw këdd suuf mu daal di génne am ndox moo xam ne ma ngay bëx bëxi haajara moo ñëwoon naan ko zëm zëm dalal dalal yonent bi alayhi salaam nee na bu doon da ko wax zëm-zëm day nekk benn dex boo xam ne dafa fees foofu doonte ne yàlla def na ko dexuk biir suuf depuis lu jege juróomi junniy at doomu aadama yaa ngi tànq ci zëm-zëm te ba tey zëm-zëm jeexul loolee mbokk benn leçon bu mag la waaye leçon bi gën a màgg te moom la ñuy màggal tey mooy la nga xamee ni nii moom la Ibrahima woo defoon mooy yàlla ne ko na nga jël sa doom ji nga dem rendi ko fekk ne Ismaila toll na ne moom ci mën a liggéey mu ñëw daal di ne ko ay sama doom sama borom yàlla day nee na naa la rendi lan la ko Ismaila wax bàyyi li la yàlla wax def ko danga ma fekk ma bokk ci muñkat yi ay yéen la jeunesse mooy yéen ndaw ñi gannaaw ba yàlla joxey misaal seen bàyyi jox ko seeni yaay benn leçon mi ngi noonu leçon mooy lan mooy déggal say wayjur waaye jébbalul sa borom yow doom say waajur lépp luñ la digal ca lor gu biir nekku ci ca xaraamul xamal ne danga koo war a def soo ko deful doo am sa ngërëmal boroom ay sama bàyyi defal li la yàlla sant danga ma fekk ma doon ci muñkat yi bañ demee ba jébbalu ba dara de suludul ibrahima rendi ko ca ko ca la ko yàlla wuutale am xar ibrahima rey ko ca place am loolu mooy la nga xam ne moom ngeen di nara en feeñalaat léegi ci ci ci kanam incha allah mbokk lii ay bind la ibrahima jàngale ko soxnaam sa jàngale ko doomam ja jàngale ko ci génération yi nar a ñëw ba ilaa yawmi diin mooy dañoo war a jébbalu sunu boroom topp sunu boroom te ñu xam ne du alal mooy tax ñu texe ñu xam ne du ay doomay tax ñu texe ñu xam ne la ñuy tax a texe mi ngi ci ñu jubóog sunu boroom jàlla wa ala borom bi ne yellul ci benn góor wala benn jigéen ndigal jóge ci yàlla wala ci yeneen ci yàlla muy am sikk sàkk ci loolu tey jii kuñ ne muurul nga bañ buñ ne la woon kay tudd ñu rendi la ana naka ngay def loolee ku ne ci ñun war cee bàyyi xel su ko defee kon yellul loolu mbokk benn juri di ko def nañuy yeesalaat sunu jébbalug sunu boroom xam ne yàlla moo ñu moom yàlla moom tànk yi moo moom loxo yi moo moom nopp yi ak bët yi nañu xool la neex yàlla ñu def ko ci loolu mooy wane sant yàlla subhanahu wa taala allahu akbar allahu akbar loolu mooy li ñuy màggale sunu borom jàll wa ala di wane ne yow yaa gën a màgg lépp loolu moo tax waa ji nga xam ne day aji makka ana lan lay répété fu mu mën a toll mooy labbayk allahuma labbayk yàlla wuy si nañ la sax si nañ ci di la wuy si waaye yow it bu aj makka gi paase ba baa ngay wuy ji yàlla ca wuy ji bu mujj ba xam ngeen ñun ñëpp wuy ji ba ñuy mujj ba ñuy mujj wuy ji yàlla mooy keroog bañ koy wuuj di dugg biir bàmmeel loolu woote la boo xam ne sañ bañ la sañul bañ waaye avant loolu sunu borom woo nañu yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm bàyyi leen riba nga ne labbayk allahuma labbayk ey yéen ñi gëm bàyyi leen njaaloo nga ne labbayk allahuma labbayk ey yéen ñi gëm bu leen sàcc nga ne yàlla labbayk allahuma labbayk ca may wuy si naa la nangu naa di la wuy si ay yéen julli ñi taxawal leen julli génne leen zakat labbayk allahuma labbayk loolee mooy la nga xam ne moom la ujaaj ji di wax waaye moom la ab jullit war a sax di wax ba baa muy wuy jëmalakul mawt labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عباد الله ومن معاني العيد العظيمة تبليغ أحكام الدين ويعلمها الكبير والصغير وذكر والأنثى قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن معاني العيد السامية تقوية الرابة بين المسلمين فيتحروا قلوبهم ويتراحموا ويتزاوروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر, سائر الجسد بالسهر والحمى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وإلى الحمد ومن معاني العيد السامية التعرض لرحمة الله تعالى قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال أم أطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد وحتى نخرج الحيدا فيكبرن بتكبيرهم ويدعو ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد mbokk julit yi ñu ngi sant sunu borom di màggal sunu borom mi nga xam ne amul doom amul ko bokk ak nguuram gi mu lépp mi ngi nekk ci loxoom ñi ngi koy màggal màggal gu màgg lool màggal gu bari lool màggal gu tey lool di seede na moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko waaye muhammad yonent yàlla la jottali na la ko yàlla yónni woon laayi ne biir xeet bi jottali na amaana ba yàlla tegoon ci moom ay yéen mbokk julit xam leen na bokk na ci màndarga yu màgg yoo xam ne iit dana ko lëmbaayoo mooy bisu it bu ñëwee ñu ne góor ña génn leen jigéen ña génn leen xale yaa ndaw ña imaam war leen a fàttali la nga xam ne moom moo nekk seen ponk diine ponk yooyu nga xam ne la am te yeneen diine ya nga xam ne dañ naan ñii ay religieux lañu ñoom rek ñoo am droit xam ña ca des moom dañu nekk rek ay jaam ñeel leen loolu amul ci lislaam islaam ñépp war a xam seen àq seen digganteeg seen boroom ca la ñu war a gëm xamal ne yow julit am nga juróom benn ponk yoo war a gëm gëmal yàlla boo ko bokkaaleeg dara yàlla moomu am na ay malaaka yàlla moomu wàcce na ay téere yàlla moomu ci ay yonent la ko wàcc yu ñu war a gëm te ca mujjoon mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllay dogal lu ko neex ci ay jaamam lu ko neex mooy am lu ko neexul du am yàlla mooy ki nga xam ne danañu mas a dajale yowmal qiyaama ci bis boo xam ne sikka amu ca waaye xamal na lislaam mi ngi taxaw ci juróomi ponk mooy seede ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah taxawal lii di julli daal di génn zakat woor weeru koor ak màkka bu dee am nga ci loolu loolu nga war a xam ne lii nga xam ne ni moom mooy sunu borom liñ ko war a jaamoo dafa lëmbaayoo ci ñaari mbir mooy daa am ay ndigalam waaye daa am ay tereem ay ndigali yàlla loolee doon na lu ci gën a màgg waaye xamal na yàlla tere nañu lu baree baree bari ngan la waay yow julit bàyyi ci xel sunu borom nee na wa man yuazzimu hurumatillah fa huwa xayrun lahu inda rabbi xamal ne day li yàlla araamal soo ko moytoo loolu day moo gën a màgg ca sa boroom ca mooy lool rek ca la ca la sa njëriñ nekk loolee nga la waaye nañ ci bàyyi xel bu baax bokk na it la nga xam ne lu gën a màgg loo xam ne it dana ko wone mooy lënkale diggante jullit ñi ñu xam ne ñun ñëpp ay doomi ndey lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi jéem a laabal seeni xol jéem a yërëmante jéem a seetante jéem a nangulante moo taxoon yonent bi alayhi salaam di wax naan jullit ñi day ni ñu ànde ni ñu bëggante ni ñu soppante dañoo mel ne benn jëmm lu metti ñi rek day daal di metti ñi ca des mbokk loolu da ngay gis ne loolu mooy li waral mooy tey ñun ñu tànnul sax bis bi def ko bisu julli ndax li nga xamee ne gis nañ ko la ëpp tey ci sunu waa réew ci loo xam ne teguñu ko ci bànneexu bakkan ixtilaaf la bu fi jiiti woon depuis Malick Shafii ñu daal di ciy tënku ñu ne nañu ànd ak ñoom ci loolu léegi lañ nga dégg benn waay mu naan ah déedéet démb lañu waroon a julli parce que démb lañ taxaw arafat mbokk ba ñuy taxawal iidu tabaske korité booba arafat xewagul yonent bi alayhi salaam ñëw na madina bi mu ñëwee fekk fa ñuy fo ñaari bis mu ne bàyyi leen yàlla soppil na leen ko li nga xam ne mooy feetu iid yi di tabaski ak korité yonent bi nekk na fa juróom-ñetti at di julli tabaski ci aj makka yàlla farataalu ko ci moom ca atum juróom-ñeenteel ma ca la yàlla doog a faratal aj makka abubakar dem aji ak sahaaba ya ca déwén si da atum fukkeel ma ca la yonent bi doog a aji nañu bàyyi xel ci loolu bu baax ah bisu it bi benn la tabaski gi rey gi ñetti fan la waaye ku julli ci suba ga julli wuloo mbokk jullit yonent bi alayhi salaam ak sahaabaam séentu nañu weer wi gisuñu ko ca suba ga am ñu ñëw ah ne ko ñun kat gisoon nañu weer bi mu ne Bilaal waxal sahaaba yi ñu dog ñépp dog ca suba ga mu dem julli ko yàlla mi nga xam ne mooy borom kumpa su nëbbee yonent bi aw weer ba bis ba mu waroon a julli it julliwu ko ca suba ga mu julli ko ngal la waaye nañ yaatal sunu dënn nañu laayante biir ñaan yàlla nangul ku nekk ca xam ne lu ci waaye def te yàlla tax incha allah yàlla dana ko nangul ñi ngi ñaanal képp ku julli démb yàlla na ko yàlla nangul waaye ku julli tey it yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala nangul mbokk la nga xamee ne moom mujjoon ci màndargay it mooy ñu xam ne it kat mooy nañ daje sunu kanamu boroom ñaan ko mu jéggal ñu ñaan ko mu daal di ñuy yërëm moom la borom bi ne inna ataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar tabaski googu nga xam ne moom ngeen di màggal bala ngeen ko def julli leen julli leen ñaan ma doo ko dem rey seeni xar moo tax benn jigéen bu baax ngi di umu atiya nee na yonent bi daf di naan wax bi su it yéen jigéen ñi yéen ñépp génn leen même ku ànd ak baax julli woo sax demal ca jullikaay ba yow bul julli taxawal ca gannaaw ngiree nga mën a ànd ak julli ñi di kabbar ànd ak jullit ñi di def la nga xamee ni ni moom mooy ñaan ñaan googu nga xam ne yàlla da koy wàcce ci bisu it di barke boo xam ne da koy wàcceel la nga xam ne mooy jullit ñi loolu moo tax mbokk jullit loolu mooy la ñuy mujje ñu ngi ñaan sunu boroom yal na yàlla musal ñu ci ñu koy bokkaaleeg dara yal na yàlla tënkuñu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wërsëgal ñu jébbalul ko ne ko Ibrahim ak Ismail ak Haajara jébbaluloon yal na yàlla subhanahu wa taala jubal ñu jubal suñu njaboot yal na yàlla jàmmal ñu àdduna ak alaxira yal nañu yàlla wërsëgal wërsëg wu dagan ca tey yal na yàlla wàcce jàmm ci suñu réew utal ñu njiit yoo xam ne dañuy teete ca la neex yàlla yal na yàlla sàmmal ñu bépp doomu réew bu nekk ci biti yal na yàlla booleel ñu suñuy xol yal na yàlla wërsëgal ñu mooy li nga xam ne mooy mujj gu rafet nii ñu dajee ci néegub yàlla bi bis dañ ko mas a dajee ca kanamu yàlla yowmal qiyaama niñ nar a teqalikoo jëm suñuy kër bu ëllëgee yàlla nañ teqalikoo jëm suñuy kër ci àjjanay firdawsi yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wajalna lilmuttaqina imama allahuma jalna muslimina lak wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta attawabu rahim allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين